ناظر الحق الشرع الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله صلاة دائمة عدد كلمات الله وعلى آله صلاة دائمة بدوام ملك الله أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسم الخليفة الأسرة الإبراهيمية noo ngi leen di nuyu xam naa waruñu woon a jël kaddu di wax ndax ku kàddug Cheikh Ibrahima Fati ki ko fi yëkkati mi ngi tudd Serigne Basiru Abdul Quddus kon daanaka ay dara mbakke mii taxaw di wax bu fi Serigne Basiru nekkoon du jël kaddu waaye mbooloo mu toll nii mu dajee kaddu Serigne Abbas war na cee juddu tudd ci ay cantaaneem ak i ngërëmam te loolu bu ma ceemut woon ndigal ndax tàggatoo woon naa ba Serigne Cheikh Astou ñaanal ma ba ma dugg sama oto di dem waaye kaddu yu ndigal a tax ma wëlbatikuwaat ñëw di wax sëriñ bi ni mu ko jàngate inna alladina kasabu bi ayatina wastakbaru anha laa tufattahu lahum abwaaba alsama wala yadxuluuna aljanna xata yalija aljamal fi sami alxiyat jamal boobu am na ñu koy tekkee buum yi yeew bato di ko këcc mu ñëw am ñu koy tekkee gileem te yàlla nee na yéefar yi du ñu dem àjjana mukk li feek jaarelewuñ giléem ci bën bënu puso loolu nag mooy leer googu nga xam ne moom la yàlla wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy xaqiqa muhammadiya wala haqiqa ahmadiya biñu wax ne jafe naa yegg yàlla dako yanké yankee walal Serigne Touba ku amul nak tawfiq lolu yàlla duko def ci sa xol bu nekkut ci sa xol nak kon la yadkhuluna aljanna hatta yalijal jamal fi samil qiyat benen bi ci dess no la violence Serigne Touba Serigne bi wax na ne ni mu gisee nataalub Serigne bi ñu di ko ñaawal dañoo xamut li nataal bi di tekki daroon nañ ko seetlu te bàyyi ko xel nee na li mu gën a yittewoo da koy def ci fi mu dëkkee te nee nañ nataal boobu ñu doon jéem a ñaawal boo ko xoolee sëriñ bi daa woon baraag bi ginnaaw kon nee na alalam ak lépp yi nga xam ne lu mu fonkoon la ci mbiri àdduna bàyyi na ko ci baraag bi te woon na baraag bi ginnaaw nee na beneen bi ci topp bu ñu seetloo photo bi sëriñ bi daa boot yaari loxoom ca ginnaaw yorut luy gaañe yorut luy jam nee na loolu tekki na yërmandey sëriñ Tuuba ak ñàkk nee bu ñu seetloo nataal bi da ngeen gis ne adduna lu ñàkk solo la loolu ci feeñ di tekki ab takk ndeer nee na loolu mooy fi jant di fenke ak fi muy sowee noonu ne noonu la adduna demee te it noonu la ko Serigne Touba xamee ba won ko ginnaaw. nee benn tànkam boobu ngeen di seen mu gën caa biir gën caa fés nee mooy wane ne moom tànkam mi ko teg ci siraatal mustaqim ak di roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn. nee na benn bëtam boobu ngeen di gis nee na benn bët bi ci gën a fes ngeen di ko gis nee na xool na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te duutul xef nee na noonu mu kaalawoo ba nëbb ay noppam noonu la mandoo ci déglu ayib bi bindee fi nee na ni mu takkee gimiñam gi ba feeñut noonu la mandoo ci wax ayib bi nit ñi nee na kon koo koy Serigne Touba nee sant na leen gis na seen taxawaay na sant na leen gis na sëriñ seen taxawaay ndax sëriñ Cheikh Astou Faye bu fi nekkee di Cheikh Mouhamadul Habib di Cheikh Ibrahima Fati bu waxee kenn warul woon a wax waaye dafa ma woo léegi ñuy waxtaan mu jox ma kàddu gi ma xam na lii luy dundal ruuxu taalibe yi la te sëriñ Touba kenn mënu koo ñaawal ku limi yeeram boobu yëg seegul ci yow rek yaay wax lu mel nii كلمة يا رب سرين توبابو بو يكسي قلت يو يو ياي وحلو ملني نخ إن الذين كسبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء حتى يلج الجمد في سم القياب خم جن جلم منتجا بن كوسو ويا خلق نمو توتة بتشل يا رب الله خجة خم جن جلم بن كوسو نانا كون يوني نيلين نيانا لي الله لغا خم نم عروف الكرخي وقون نكو تنان كتي سانغرو يه أي تالي nee na kon nag mi ngi leen di sant bu baax a baax xam na ne sëriñ bi ñaawut kenn mënu koo ñaawal xanaa umpale ko ko waaye nee na mi ngi ñaan yàlla képp ku umpale sëriñ bi yàlla ubbi sa bët ba nga xam ne sëriñ Tuubaa xam mooy kan ndax nga mën koo jariñoo asalaamaaleykum